Euh, te di leen ñaanam mu mel nii fii ci Notto Goudiama dañu am lu nga xamante ni lu leen naqari ci dafa mel ni wër na ci réew mi mooy ku nga xamante nii ñu ngi koy wax maam Cheikh mbay yàlla dogal na mu feebar euh, bi mu feebaree itam yàlla xam na ni maanaam dafa amoon ay rab rab yi itam ñu doon ko faj di ko yóbbu inter di ko yóbbu euh, faan di ko yóbbu fépp këyit yeeg yëpp a ngi fi yàlla dogal demoon na ba tane waaye bi mu demee ba tane la wàññikuwaat affaire bi dellusiwaat dellusiwaat ko ci la wàññikuwaat def loolu nga xamante ni neexul jullit mbokkam neexul kenn Euh, ba ñu dugal ko internet lu leen doon leeralal ni ko ko def ab jullit la baayam da ko yóbboon Tuubaa mu dafa jàng bi mu ñëwee itam xasida rek la doon jàng ak alxuraan boo demee ci néegam fee dafay teg alxuraan ji lem fee mu teg fa xasida yi di ko di ko parfo di ko lëkkale bokk ci daayira yi waaye problème mu daal moo ko jàpp ba ñu doon ko faj di ko yóbbu faan ba tane woon na sax waaye ci la wañu ko waat rek daal di xëywaat daal di defaat li nga xam ne daf koo def mu wër monde bi wër ñëpp kon mboolem ñoo xamante nii gis nañu ko rek wala dégg nañu ko rek noonu ko leen koy jéggul bu baax ci di ko jéggul te xam ne am nañ ci naqaru méttee méttee méttee métti waaye ki ko def ab julit la eh, am murit la saarix te itam da doon jàng da doon jàng alxuraan da doon jàng alxuraan ca maanaam ca Touba. fa mu jógee ca daara ji fi mu ñëwee tam loolu moo ko dal waajuram wu góor nag wàcc na ab liggéey waaye waajur waajur wu jig ak i bokkam ñoo fi des ñu ànd ak réew mi ak ak bitim réew ak julit yëpp di ko naqarlu waaye ñu xam ne dafa wéradi ñu ngi toll nag di ko faj ñu ngi koy ñu ngi koy yëgal mboolem ku nekk ci réew mi ñoo ngi koy yëgal tam képp ku li képp ku autorité waaye képp koo xamante ni yaa ngi ci Sénégal ak li Sénégal ak itam ku faw nekk ci jullit daal loolu rek la leen doon leerale ñu di ko wax maam Cheikh Mbaye loolu moo ko daal waaye dafa wér di woon ay këyitam même yabale nañu fi sax gendarmerie xool na ko xool nañu këyit yi waaye fii ne ñu ngi toll ci di ko faj ñoo ngi leen jéggalu baax ci leen sant ci di leen gërëm ñaan mboolem réew yaa def fi jàmm mboolem bitim yaa def fi yàlla nangul leen seen jàng